bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wa salaamun ala ibadihi alladina stafa alayhim wa ala imamihim wa afdalihim sayyidi wa habibi abil qaasimi muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi almuhtadin mbokki julli bi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ndokkeel di leen ndokkeel ci at mu bees bi atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak benn bi yonent bi gàddaayee ba léegi ñu ñaan borom bi tabaraka wa taala at mi génn yàlla na yóbbaale suñu bakkaar yi yàlla na yóbbaale suñu bakkaar yi yépp te at mu ñu man yàlla na nekk atum xéewal atum barke atum jaamu yàlla bu yàlla nangu atum wér yàlla ko ci yàlla def te yàlla bu ren nekk suñu mujj tamxarit wax jooju yépp nag maa ngi koy wax di ko teg ci loxo al ustaad al kabir habibul umma ustaaz Alioune Sall moom laa koy teg ci loxo ndax mooy sama bunt ci yéen loolu la yàlla dogal di ko fedd li kóllëre di ko fedd li ñaan di ko fedd li yéene yéene yi mu yàgg fi lool te am ak wér ni ko mbokk yi ñaanee ndax moom su fi yàggee te wér lu bëri ci li naqari jëm ci réew mi dana fi jóge su fi yàggee te wér lu bëri lu julli di xemme moo na gis ci seen réew danañ ko fi gis ku mel noonu kon ñun ñëpp ñoo am waru garu ñaanal ko may fedd li ko lëre gi suñu diggante bi ñaan yàlla mu sàmmal ñu ko euh, cofeet bi yàlla sàmm ko ba ñu daje ci kanamam mu gërëm ni bokk dugg ak àjjana yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def fi naa sama diggante ak yow amatul lu ñuy wax waaw ah, il faut nga yàmbare lool door a bañ a waaye boo amee yitte tuuti tuuti xam ne man maag yow bu ñuy ñaar kenn lañ loolu la yàlla dogal loolu yàlla moo ko dogal ah, moo tax ba bu set nit tàpp ne ma si sëñ bi yow Saalum Sall tey war nga ko gërëm sant ko ma ne ko non non du ma ko gërëm parce que foofu maa fa nekk. loolu la yàlla dogal ma sant yàlla bu baax nag ma sant la yàlla parce que bu ko xoolee du ma xam lu tax su ma gëstoo ba ci du ma xam lu tax lu dul dalika fadlullahi yutihi man yasha kon ustaas bi lay motteel ci bis bi di la ñaanal borom bi tabaraka wa taala nga yàgg koo taxawee di ndokkeel mbokk jur bi ci yow Euh, yàlla yàgg leen a boole ñu yàgg leen a dégg incha allah ca kaw ca kanam rek incha allah ndax yàlla moo la liggéeyloo te yàlla comme liggéeyloo jox la jumtukaay bi incha allah amul benn problème mu jot rek yoon jarul yàkkamti jarul jaax incha allah su ko defee euh, tomb bu ñuy waxtaane tey mooy tomb bi nga xam ne waxtaane woon nañ ko ñun ak waa Ali Imran at bu jot bu tabaski boobu tabaski bi dëgmalee rek daanaka sax ñu commencé di waxtaane ban tomb la ñu war a waxtaanee day ci asura dañ koy waxtaanee maam ñoom ba dëppoo rek ren tomb bi ñu tànn mooy al mujaharatu bi fi'li al fahisha wa zina min ajaa'ibi suwar al من عجائب صور الانحراف في الواقع المعاصر في البلاد الإسلامية ظاهرة المجاهرة بفعل الفاحشة والزنا أو الدعوة إلى فعلها أو إظهار الإعجاب بأهلها بوضوح ودون مواراة أو حياء أو خجل ولا ريب أنها ظاهرة خطيرة ومثيرة ومؤرقة لذوي الغيرة والدين والمروءة وكذا مسألة انتشارها وإشاعتها في الشاشات الإعلام المرئي والقنوات المفتوحة الخاصة والعامة وكذلك الإذاعات المسموعة والصحف والمجلات والدوريات وقد جاء النهي fi char fi chariatina wa axlaaqina an fi'li daalika faqad qaala taala muhaddiran haa'ulaa'i al-mujaahiriina bihaa inna alladiina yuhibbuuna an tashia al-faaxishatu fi alladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi ddunya wal aaxira wallaahu ya'lamu wa antum laa ta'lamuun. waa mbokk yi. li jaaxal ñëpp mooy xër gi am ñu ko xër ci fisal mbon ci sa biir li jaaxal ñëpp mbon moom mbon moom yàgg na que mbon ak mbaax ñoo ànd te boobu bu bon amuloon baax du nekk mbir li tax baax fexe ba baax li tax ku ko def yelloo jërëjëf mooy li fi mben li fi mbon nekk te bon gën a yomb baax bon moo gën a yomb baax kon bon Moustapha nekk naka jëkk waaye nag naka jëkk itam bon dañ koy lëpp dañ ko daan lëpp naka jëkk ñi baax bugguñu woon bon fés ñi bon sax bugguñu woon bon fés kon lan moo xew lan moo xew ba tax jamono jëpp jóg ay équipe ñu def ay équipe wut ay moyen pour fexee fésal bon lu tax loolu lu tax ñu bëgg mbon fés ba mu fu mbon amul sax ñu keree yu bëree bëri ñu ñaa koy dégg léegi buñ ko masaan a dégg seen fit dem léegi dañ koy dégg mu jaar mel ni dara xew ay mbir yu ñaaw ay wax yu ñaaw ay jëf yu ñaaw ay nit di ko fësal di ko yëgle di ca woote di ca woote di naw ña ca bokk loolu daal lu doy waar moo tax képp ku mbaax ñor képp ku mbaax neex sa xel sa xel dalut te bëgguloo ndax lii raam su àggee ci ñag ba ñépp seen awra nekk ci biti ndax luy yiir awra du fi amati lii raam su àggee ci ñag ñépp seen awra nekk ci biti ndax awra du amati lu ko yiir te nag nëbbu awra moo ñu wutale rab yi nëbb awra moo ñu wutaleeg rab yi kon suñ demee ba li taxoon ñu gën rab yi ñu tànn def ko bu boobaa rab yee ñu gën ndax lu la tax a gën sa nawle soo ko bàyyee doo ak sa nawle sa nawle danay gën kon suñu nëbb awra wuutaleeg rab yi bu ñu fësalee suñu awra yi rab yi ñooñu gën ndax bu rab amoon xel du nangu awram nekk ci kon mbir mii ñu dugg mbir mu grave la grave boo xam ne ñàkk koo waxtaane erreur erreur la ñàkk cee jóg ñàkk xel la war nañ koo waxtaane war nañ cee jóg ba mu fi l'islam musta nangu ku fisal mbon musta nangu ndax bu mbos bu mbon yàggee fis bu mbon yàggee fis ki bonoon duuta am kersa ci bonoon bi waaye dañuy ñëwee bon lu garaaw la li may wax nii lu xóota xóot lay su mbon yàggee fis su fekkee ku bon man koo fésal bu bon yàggee fés ci bonoon duutu am kersa ci bonoon bi kon du bàyyi bon du bàyyi bon waaye ñi baaxoon sax duutu ñu ragale tee bon ndax fu ñu tourné rek gis fa ñu bon daa mel ni léegi la mbon gën a yàgg déedéet man naka jëkk mi ngi waaye léegi lañ mbon gën siiw moo tax siiwal mbon ku bon a koy def siiwal mbon ku bon a koy def ñu bàyyi xel ñu bàyyi xel bu baax am na ci dëkk bi ñoo xam ne siiwal mbon lañ def métti te ku leen wax ne bokk leen ci ñu baax ñu mer il faut ñu tànn nañ tànn waxuma sax ne kuy siiwal ku mbon ku bon nga waaye kuy siiwal mbon da torox bala ngaa dee xëy na nit ñi bañu ñoo bon mais bañ nañoo torox kon ma waxaat ko kuy siiwal mbon ku bon la te ku bon bala ngaa dee da nga torox da nga torox fii ci àdduna ba yépp teg ci seen bët ndax yàlla moo ko wax te yàlla mës ta wax lu mu def lu mu def mës ta wax lu mu def lu mu ñu mës a wax ba mu jotee gis nañ ko kon suñu aayee mbon ba pare aayee ñu siiwal mbon ba pare ne ku bon ma toroxal la ku bon di nga torox